ayca dañ koy daal di dooree nag ak euh, euh, ndaje mi nga xamante ne ni moom président bu parti bi di PASTEF woote na ko muy giga meeting bu nga xamante ne nii ñoo ngi ko fas yéene amale fële ca dakaar Arena euh, samedi bi ñu jëm incha allahu rabbi moom Ousmane Sonko nag nee na nag du ñu def rek lu dul wàccaay jëm nag ci collecte bi nga xamante ne ni fas yéene nañ ko collecté muy. boole seen i alal ñoom askanu Sénégal ak sympathisants yeeg ñi nga xamante ni ñooy militants yi nekk ci biir parti bi fas yéene ko euh, dëgmale campagne yi ñu jëm nga xamante ne ni le 17 novembre bi ñu jëm lañ ko fa yéene amal moom Ousmane Sonko nag am na ay kàddu yu nga xamante ne ni yëkkati na ko keroog ba muy euh, leen li ni mel du ñu def rek lu dem sur côté dellu national ba contrôle action gouvernementale ñu mun koo def te assemblée nationale ba reddition des comptes mooy leeral càmbar bi ak nit ñi ñëw layoo ñu koo def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 mi ngi noonu collecte la pour euh, financement wu euh, campagne électorale yi bam bi dégg nga li président wu parti bi euh, wax muy Ousmane Sonko jëm nag ci mobilisation bi mu wootee samedi bi ñu jëm collecte bi nag daanaka daf ko annoncé sax doon wax samedi kuy ñëw na nga indaale sa astuut bi nga yor waaye ba mu noppee rek nga gis gars yi commencé di daw. di dem di wutali euh, fa ñuy envoyé xaalis bi euh, ban euh, aperçu nga am ci doxalin bi nga xamante ne ni militants yi ñu ngi koy doxalee. xanaa di wax alhamdulilah di ci kontaan avant ñuy dem élection législative sax Ousmane Sonko ku ko xam-xam ne ci <laughs> maa jigéen bàyyi saas ku ko xam-xam ne yàgg na ci lii macha allah <laughs> maa bàyyi ma ma wax s'il te plaît ku ko xam-xam ne macha allah lii forum la man mi di wax ak yow participé naa ci yónnee naa député rek samedi jotagut te yónnee ma rek 1000 francs yam ci waaw parce que lu waaye di woote da koy niro moom nee na euh, lenn ci xaalisu état bi duñ ko jël di ko campagne effectivement il la raison ku nekk xam na Ousmane Sonko mooy kan nee na Pastef bokkut ak benn parti ak ay dëgg te ma koy confirmer ba tey ay waxam Pastef bokkut benn parti Pastef du luyee nit Pastef du luyee nit Pastef du luyee ti set Pastef du joxe ay sandis Pastef du jël ay mobilisation ay car par tête ay 2000 ak 3000 ngay pare di am coow man en commençant par mois mais mën naa jël exemple sama bopp Kër Massar bañ fay dem kenn yóbbu maa taal sama oto ak sama essence demal sama bopp seetaan booba xamaguma sa exact rek mooy Ousmane Sonko en en totalement kan la daal kan mooy waa jii di wax. mu nekk nit ko am engagement ak détermination ak ku dëgg ku sincère koo xamante ne lu mu wax rek téere la. te lu mu wax rek amul benn araf boo xamante da nga ko ci mën a dindi wala nga ko ci wàññi ci kàttanu yàlla ndam loolu nag ak pouvoir boobu borom suna taala moo ko ko may cagnotte bi ñi ko fi doon jéem ana mu sotti na est-ce que pour ñu am 15 millions. mais kenn moomu ko nag. waaw kenn moomu ko effectivement parce que ñu ngi koy def slogan sax ne kenn moomu ko effectivement kenn moomu ko waaye cin bokkul sa fet toppandoo sa maas diiroo ka ngay man mbagg waa Samba Linguère bi mu wootee nag mange nag millions yi daanu na ci tali bi de yi. te la te samedi jotagut waaw ba samedi jotee ku war a dem gàddu mi franc foofu xanaa day mel ni tukku sa bënn sa saañ ba réer yàlla nañ ci yàlla yóbbu ku mën na def nga oote grand théâtre wala nga oote arena wala nga oote feneen wujjikat yi tibbkat tànk yi ñooñee mais bañ a tudd bëgg ma ne damay te promotion parce que maa matu matuñu donc man daal en tout cas maa ngi wax patriote yépp ngeen focus campagne seen bopp lu rëy génn ci seeni poste ndax kenn ku ci nekk yàlla na la nee du ma taay ko wax Pastef y a des ñoo xam ne ay ay ay responsable lañ ay intellectuel ci nekk ay ñu am savoir vivre ñoo xamante ne macha allah lu ñu song daan ko yal na yàlla mottal leen te majorité bi yal na ko pouvoir bi am ci barkata rasulullah maa ngi koy ñaan yàlla yal na leen ko yàlla may ndax ñu mën a lancer li promesse yi ñu joxe ci àddina bi yëpp li ñu dikk ñu mën koo mottali ci assemblée ba parce que ki doon wax du ministre bi mais président parti Pastef moo doon wax muy président Ousmane Sonko wax na li ñuy envisager ak li tax ñu bëgg am majorité à l'assemblée pour mën a doxal réew mi wax na nan la mel ak ay militants ak ay militants fàttali leen te xam ne communication la nit ñi xam ci moom Ousmane Sonko ko xam-xam ne bay la du dee toog semaine wala weer te génnul wax ak askan wi comme ci wax lañ ko xamee ak communication dama koy ñaan mu continuer ci loolu wax naan ay waxam dafa bëree ay waratula génn campagne bi ubbi na gën a lancer message yi gën a wax àddina bi gën ko bàyyi xel parce que ñu ko bëgg bëgg nañu pare muy diaspora bi ak ci biir réew euh, li nga xamante ne ni moom la Ousmane wax jëm nag ci samedi bi mu woote yaa ngi doon dégg sax El Malick Ndiaye mi ngi doon annoncé le 19 le 19 le 19 mais finalement lii la mujj jur woote samedi ngir rek fas yéenee door ak euh, collecte bi ñu fas yéenee amal samedi bi ñu jëm. waaw am na solo xanaa naqarlu ko rek euh, te war koo naqarlu. Ah, ndax ñoom ñoo yore gouvernement bi bu ñu yoree gouvernement bi nag di ko doxal. Euh, si ñoom lañu war a roy ñoom it ñoo yore l'intérieur yore lépp organiser ay élection daat ni kenn amul droit def lii te élect te te tijjiwuñu campagne bi kon nag bu si ñëpp tënkoo ñoom it dañ see war a tënku mais Ousmane lii mu def lépp campagne la bu rëy sax boo xamante ni def na ko munta def lu raw lii mu def campagne bu rëy la te campagne yi tijjikoogut kon ministre de l'intérieur dafa waroon a gàntal samedi bi. campagne dafa am nag. nga ni pré campagne dafa am. pré waajal. ma lii mun a def lu ëpp lii mu def si campagne bi te campagne amagul ministre de l'intérieur kon dafa waroon a gàntal gàntal samedi bi daan ni mayuñu leen ngeen def ko daal di koy gàntal bu ko defee ñu xaar ba élection yi bañ ni tijji nañ campagne bi après ñu dem foofu dajal campagne. ñu ko convoqué dafa génne ne man maay onzième ci euh, ci liste bi ci liste national ñun laajuñ ko woon loolu te moom mi ngi prouvé di wax di def ay appel ay militam ak ñi nga xam ne wóolu nañ ko yaakaar nañ ko pour ñu jàppale ko surtout ci diaspora bi code code phare la daal loolu campagne déguisée la woon donc man jàpp ma ne lii nii nii campagne bu ubbi la anticiper non non non. waaw ko mu tem àggale ah, foo bëggoon ñëw. <laughs> bi bàyyi perte. campagne bi dafa tijjeegul. ministre de l'intérieur dafa teg ay normes. ni norme yi nañ ci tënku kon bu fekkee génn na hmm. wax àdduna hmm. bu yëpp dégg li mu wax partagé ko tasaare ko fépp ñëpp jot ci mu daal di def laajub xaalis fu ne nii millions yi dugg kenn xamul nu mu toll. loolu lan moo la ba tax xaalis bu waruñu koo laaj. waa léegi léegi yow nga ne lii campagne la pourtant na ñu ñeneen ñu joxe ay annonce le jour fas yéene dem si benn barab pour dimbale di waate loolu ñan la tuddee ñan la waaw bugaan bugaan loolu mu def moom la président bi def tey président ba dafaa dem dafa am ñoo xam ne dañoo nekk si ay jafe nit ñi dafa dem di leen xooli seen jafe nan la ñuy def bañ génn ca bugaan nit samedi mu aj ay activité am si samedi bi waaw mu aj ah, waaw maa ngi ñëw non non lii ay jafe la mu aj ay activité am si samedi bi samedi boobu bugaan aj ay activité am mën a dem seet ñi nga xamante ni dañoo am ay jafe-jafe sa ndox ma mooy mu xool lu leen mën a dimbalee loolu xam nga ne yàgg na koo def mais bu dul politique yàgg naa déplacé wu dem xool ñu nekk ci ay jafe-jafe jàppale yàgg na laaj ay kañu pour pour mu dimbali ko ci ay ay ay élection pré-campagne xam nga yéen Assane da nga koy nangul non Bambi xaar après nga ñëw après nga ñëw s'il vous plaît après ma jox rek taxawal dañ damay wax ñu ah, après nga ñëwaat ah, ko mu terminer bàyyi ko mu terminer mais Ousmane Sonko bu deful kañoon maa jigéen dañ naan xaalis état nga après di nga ñëw après di nga xam nga xam nga yéen wala ñenn ñenn lii seen problème buñ ne usmaan Sonko nangam ngeen ni Bougane nangam mm. maam yéen li am si diggante Sonko ak Bougane ñi ànd ak ñi ànd ak Ousmane Sonko ñoo ko indi te loolu gënal na gënal na ñi ànd ak Bougane gënal na ñi àndak ñi ah, gënal na leen tey jii bu ñu nee Sonko nga ne Sonko waaye bugaan nangam comme ni nga def léegi nii non non comme ni nga def léegi nii ñaawlu ma ne la pourtant am na ñeneen ñuy man ñuy ñuy ñuy annoncé seen i ay ay ay mbir te pourtant ñaawlu woo ko waaw waaw nga bàyyi ma ma wax non non wuro wuro wuro wurtu dugg foofu mm. xam nga tey jii bu fekkoon ni mm. euh, tey jii maa ngi wax si euh, Ousmane Sonko ni mu woote arène nationale exemple bugaan woote grand théâtre man may wax si bu Sonko baa ma wax si bu Sonko bugaan bi nga bàyyi ko ne mën a wala bu may wax si bugaan nga bàyyi bu Sonko mais boo naa boo leen di conférence tension rek loolu moom mooy dem mooy ñëw ci ñun waaw mooy ñëw ci ñun te mooy dem te kenn mënu si dara waaw nu mu doonee baax na kon <laughs> woote boobu nga xamante ni woote na ko jam ñaajo mm. loolu politique la plus sondage ndax munoo dajale loo xamante ni lu mu gàtt gàtt exemple dina war a mat mutu téeméeri nit yi mën na ko jege wala mu ëpp ko mën naa doon mbooloom nit mbooloom nit ñi nga ne ku nekk na indi mille francs nit ñooñu mënuñoo ñëw indi ku nekk 1000 francs dagg seen yitte paasal seen bopp yëkkati 1000 francs jox la te duñ la watee loolu mënta ne nit ña nekk bitim réew it kenn ku nekk yëkkati sa xaalis ba nga am di joxe ñu laaj la bu ñu la laajee 1000 francs nga joxe 10 000. te doo wote loolu mais est-ce que loolu tamit nekkul di rupture bi ñu doon wax ñoom moom mooy moom la ñuy dëggal ba léegi parce que mënoon nañu jël tey xaalisu état bi comme ni ko non non pas xaalisu état bi dama ne xam doon def non non xam nga ñu jël ko campagne ko tey ji gis nga falal ñu woote pour ñu ñëw participer gis nga lii ñu dajale nii waaw mën nañ ko dajale ba pare daal ni leen temps la waaye jox nañ ko waa mbënd mi ñoom seen bopp ñoom ministre yi ñu yëkkati xaalis financé en campagne bi xam nga mën naa ne mais dañuy wane waale seen doole IP yi di sonda saale voilà sonda saale ndax kat bu jaawale ki wane doole bi ak ki yàlla yëkkati waa Pastef Ousmane ko yàllaa ko yëkkati lu ne fàng la kenn du ko jeex kooku bu munta natt natt boppam ba am ba nekk ci nguur dina taat boppam man jàpp ma ne sondage la ak natt boppam euh, sa maam daan na wax ne euh, euh, ne ci ne ci xef ko gën ndax ki nga bëgg def ko sa xef yi benn bu ci wadd ak mbëggeel ba jeex mm. Ousmane Sonko ci xol yi la nekk munuñ koo bàyyi munuñ koo fàtt man boog suye boo ci télé laa nekk sama yoon ci tey mun munta def lu tax ma di ko ma di ma di ko jéppi wala ma di ko bañ man ma jël exemple sama bopp d'accord mm-hmm. ah, loolu am na solo mais mm. li tax ma ni sondage la man du ma yëkkati sama 1000 francs di ko jox Ousmane Sonko dagg sama yitte. Mm. ma dem ba sa élection yi bàyyi fa bàyyi fa kéem du ma ko def. part euh, man mi joxe 1000 francs ma demee damay jël carte am wateel ko. Mm-hmm. mais nag su ma nekkoon du ma la jox 1000 francs wuy si su boobaa bu ma demee man na ma koo tëb bu nekk kanat baa ngi nii ma ne ko du la connectal ta téye sama bopp bés baa mën naa ko bañ a ko connectal pare bañ ko wateel. Mm-hmm. moo tax man la sondage la et puis wane ni. sénégalais yi ngeen wax ni bàyyi nañ ñu bàyyi wuñ ñu tey lañ sénégal yi gën a ànd ak ñun tey lañ sénégal yi gën a bëgg ndax léeg nga gis ay vidéo yoo xamante ni ñu ngi naan ñun Sonko ma yëgoon du ko woteel ñi bàyyi naa leen ñii nangam nangam loolu nag day day jekk balaa élection yaa nga wane sa doole kon lii wane doole la boo xamante nii ministre de l'intérieur moo ko waroon a gàntal ndax lii fi mu jëm mooy ñeneen ñi sax nañ taayee dem si élection yi kon ministre de l'intérieur da ko waroon a gàntal jërëjëf jërëjëf euh, Baye Assane Misséré loolu la joxe comme contribution ci euh, sujet bi Oustaz ban jàngat nga def ci militants yi seen taxawaay par rapport ak euh, bi Ousmane Sonko defee annonce bi ba tey xaalis bi ñuy tudd chaque jour euh, fi mu toll ban gis-gis nga si am. waaw jërëjëf euh, soxna ma jigéen ndax des fois débat moom dina toll foo xam ni ngay déglu rek day daal di am solo pour mën a comprendre dafay toll. moo tax ma toog yaru déglu. très bien fas yéene bañ a dog kenn. Mm-hmm. kenn. parce que tam lu ci am solo la Assane. Mm-hmm. Eh, tabarakal la li nga wax Assane ci ni ministre de l'intérieur mënoon na gàntal euh, côté boobu man pour man garaawul jol muy gàntal parce que moom mën na wax li mu bëgg a wax ngeen ñi tam bu leen neexee tey ñu génn wax li ñu bëgg a wax def seen appel parce que campagne bi xeeñ na ba pare cin bi naree neex moom bu baaxee day xeeñ comme ku ci ne ñoom mën ngaa def say appel yooyu mënul ñàkk daal comme façon bi Sonko def ni garaawul waaye li garaaw Assane xam mooy lan li Sonko wax ci ànduma ci te rafetluwuma ko man personel personnellement boo tuddee maam mi ba dugal ko se wax ji feneen bëgg si dugal Sonko li mu wax nii. ànduma ci rafetlu ma. foo ko teg oustaz. Euh, waaw la waaw mais bu ñu ko bàyyi. Ah, nit ñi kenn seen am. il faut ngeen déglu. ñu ngi faral kenn tey présenté émission. Moussa man musuma la wax dama fa gis naa ni na de. voilà dama la li nga wax lan la wax ak fan nga ko teg. ok merci question la. Assane question la sax li mu wax. dama ne ànduma ci te rafetlu ma ko. ndax lan. waaw très bien xam nga ma jigéen Euh, sunko dafa am fu ñu déparé ak moom fu ñu boo déggee fu ñu xam nga dégg nga ci sama bopp man dégg nga ci sama bopp maa ngi ci biir ah, dafa am fu ñu déparé ak moom waaw dégg nga wax bi fu ñu déparé moom mooy Assane Sonko dañoo ànd ak moom ci ànd bu sincère nit ñi sénégalais laa wax parce que ñoo fol parti au pouvoir ci lépp loo xamante ni bu dee bakkan doon na ko laaj jeunesse bi joxe nañ ko bu dee alal doon na ko laaj jeunesse bi joxe nañ ko lépp loo xam ne daal laajoon na ko jeunesse bi ànd nañu ak moom ñu tëj ko mu metti sénégalais yëpp ànd ci sur tous les plans Baye Assane ànd nañ fa ak moom ànd nañu ak moom léegi nag yëkkati nañ ko ba jàpp ko jàpp président bi yóbbu ko biir palais kon askanu Sénégal amul lenn loo xam ni deseeleel nañ ko desal nañ leen ko bu dee cofeel la mbëggeel boo déggee Adja Bam bi wax nga xam ni kii dafa bëgg Sonko boo déggee ma ma jigéen wax su yeneen ko digam ba ci ba ci Moodu nga xam ne ñii seen tur rek laa àbb de dama àbb seen tur rek non ba ko mo dama àbb seen rek jël ma dama bëgg seen tur rek ma dama àbb seen rek dama àbb seen rek dama àbb seen rek dama jàpp ne rek lu rafet la parce que wane ngeen ni da ko bëgg. te bëggeel ngeen ko bëgg parce que ku déglu baam mi wax kii laax baam xam nga fan moo xam nga lu ma àndul. boo am na caisse noire. Sonko premier ministre. bu jegewul caisse noire mais xaw na am lu mu am. bu kenn dugal ci nopp sénégal yi bopp Sénégalais yi ni ñoom amuñu dara. loolu xel du ko nangu deesey nañ la ndax du ma nangu xoola président président am na caisse noire am mm-hmm. Sonko lu mu bon bon boo amul caisse noire am na lu jógee caisse noire mm-hmm. kon beneen bi ñi ñu fal ñuy ay ministre ak ñooñu am nañu lu ñu am yaa ngi dégg dafa am loo xam ni campagne ba àdduna sosoog tey <laughs> Sénégal sosoog tey ci Senghor ba ci Abdoulaye Wade ba ci Abdou Diouf ba ci Macky Sall mosuguma dégg boo xam ne dañ naan population bi eh gars yi indi leen 1000 francs ñu campagne li ngeen yore loolu xel nangu ko kon Ousmane Sonko bàyyi ma ma ma ma expliqué la waat la pour mu clair daf léegi li ma dégg léegi li ma dégg li ma dégg li ma dégg li ma dégg yaa ngi jël position yaa ngi jël li ma dégg ma jigéen bu ngeen yow bu ngeen dégg na élément eh, bi la ko dégg ñu ko dégg nii bul jël position. moom ni mu ko déggee la ko waxee ah. non non jël position ministre bi yor ko muus. waaw bu baax. dégg naa de xalaatam lay wax. man sama xalaat lay wax waaw loolu rek maanaam jàpp naa ni li Sonko wax mooy ah. nañu indi 1000 francs ku nekk wala waxul loolu taw la wax nañ ko indi Macky Sall mosul wax nañ indi taw Abdoulaye mosul wax nañ indi taw Abdou Diouf mosul wax nañ indi taw asa jamonoy taw ji ci xiin ji ci la Sonko nii nañ indi taw taw yii i Sonko wax nañ ko indi laa ni rafetlu wu ma taw yi <laughs> man Souleymane Diaw maa rafetlu taw yi Sonko wax nañ ko joxe 1000 francs yooyu dafa xat mat na ceeb ceeb bi ceeb mat na ceeb mat na dëwlin hmm. bala san hmm. ñoom ñooy campagne d'accord dégg naa la xamal leen dina atteindre objectif am. Hmm. ñuy joxe dinañ joxe terewuma leen ko ndax ay soppe lañ te boo amee si soppe bu la nee may ma nga may ko. Hmm. mais dama ni campagne boo xam ni man man nga xamante ni maa la campagne la ba yóbbu la hmm. ba yóbbu la def la ngay premier ministre. Assane kii lan laa desee teg moom. foofu laa ni kon foofu laa ni sama déggin man. yoonu mayu ko sax mu naan ni gars yi indi na gis nga 1000 francs yi. 1000 francs yi ak 1000 francs ak alal ju njëkk ja. ah day ñëwaat jamono ngi ñëw dina la àtte de. dinañ ne état bi. bambi yaa ngi may dog de. dinaa la dog loo xam ne dog ma dog ma dog ma dog ma dog ma dog ma dog ma dog ma dog ma dog ma dog dama yàlla baal booy wax naan damay kontaan li mu sentir lay wax je suis très content de toi mais moo tax question rek benn question léegi yow d'accordoon nga kon gars yi fi nekkoon doon tibb ci xaalisu état bi ah. di dem di ko di ko campagne yow loolu d'accordoon nga ko asan asan gars yi dañu am ay xaalisu état neen la gars yi dañu am ay salaire dama ni ñoom dañ leen di fay chaque mois waaw loolu la wax ne ñoo am salaire waaw oustaz ay ministre oustaz loolu laa la doon wax mu ne ma la moom ba muy woote mun jël leen ci waa parti bi la woo ministre yi la njëkk a woo DG ku nekk mu ngi la ñu yëg naa loolu waaw kay yëg naa loolu de yëg naa ministre yeeg DG yeeg mm. moom kees li mu am ci keesam mm. moom Sonko mu génne tekki table ji plus ne mais pas man ah loo foog premier ministre waaye yow sa waay fépp foo gisee président di añ ministre ba premier ministre day macaat kenn mun leen koo tere mm. bu ñu naxante Sénégal lañ dama lii sa ngoox man man bu loolu ma la laaj xalaat. dama ne ko carrément gars yi doon nga leen laaj dara ah. ndax 1000F yi dafa garaaw. Mhm. Assane 1000F yi mooy bés bu ñu gisul lu leer. Mhm. dina di problème si réew mi. 1000F waaw la wax. Basa naa wax leen gis nga lii li tax mu garaaw. <laughs> yéen a ngi xeeb dërëm. 1000F yi gars yi di jox. bis bu ñu demee ba gis ñu seen bopp ci seen 1000 francs yi ñu joxe woon. dinañ taxaw bu ñu ko sonk ko suñuy ko laaj problème du am. non déglu waxuma loolu parce que xam nga ne Pastef fii ci social la ñu dox. waxuma loolu joxe leen yàgg na ci Pastef man naa mi daal foogal naa di. bàyyi naa yaa téye bu ah, lay dog bu ma nekkoon gis nga ma da waxtaan daa baax hmm. dama ni man bu ma doon bu ma nekkoon bu ma ah. xalaat dama naan ko grand bu laaj population bi voilà ñun nañu génne. suñu alal di ñu am. Hmm. nañ ko génnee. Ah nañu génne suñu alal di am mais seen génne wax nga ko sax. Hmm. ku ne bu doonee un million teg ci leneen leneen mais ñu campagne. Hmm. waaye léegi joxe bu ñu bëggee joxe. bu dee cofeel nga am na déglu bu dee cofeel nga am na. ñoom seen biir ñoo koy lijjanti seen biir Assane. tey nga ñëw Thiès ñu ne Pastef moo ñëw ña gérer passé foofu mën nañoo kolo kolo seen biir nga xam ne ñoom seen bopp. ñoo ko defal seen bopp loolu ak lii lu leen wutale. yaa ngi pas moom mu koy wax non pas Sonko dama ne. pas Sonko président Pastef bi mooy président wu parti bi même bu nekkee président Pastef pas Sonko wax gars yi génne leen 1000 francs bii moom bii moom rafetlu ma ko mille francs yi moom bii moom mhm. bii moom bii Sonko moom moom euh, grand frère bii moom d'accord ma ci quoi yow yaa mag Sonko kan kii mën maa jur nga naan maa mag su kan laay maganteel xanaa <laughs> yëgoo lu xew Sonko 48 ans la am de fuuf la ma mag nag <laughs> d'accord ñamal la loolu jërëjëf ayca mi ngi noonu euh, Modou Diouf euh, lu ñuy wax rek comme bu doon match la tey ñu ne coup d'envoi bi lancé nañ ko dégg nga lii Ousmane Sonko wax ses militants ak sympathisants yi samedi ñëpp di ko waajal daanaka rek euh, gars yi sax commencé nañu joxe li ñu am as tuut. waaw daal am na solo bu ma kenn dagg nag. Hmm. ndax dagguma kenn waaye damay wax waa Thiès. oustaz bi bu ko jékki jékkee keesu jàkk ji moom lay dundee waaw yow waa Thiès waxaar rek waa Thiès waa Thiès non yow waa Thiès waa Thiès bu ñu la dénkee keesu jàkk ji yow keesu jàkk ji ngay dundee man mi yow oustaz ndax li nga wax. non non non waaw xaaral rek. moo tax ma laaj ko ndax li nga wax nii non xaaral rek. non non xaaral ma xaaral ma non non. bàyyi ma yegg jumaa jaa ngi. dama ne la ko dégg. dërëm mosuñu dama ne oustaz mii Souleymane Diaw ma bàyyi jàkk ji oustaz mi association bu am Thiès buñ ko ko dénkee jox ko kees ga kees ga lay dund. Ah, ndax ndax yow loolu nga gëm. non je loolu nga gëm. lu tax nga wax loolu. waaw parce li nga wax nii loolu nga wax Sonko. non non non. waa xaaral. dama ni Sonko na génne ci alalu boppam moom. ana alalu boppam bi. amul alal. anamu. Sonko amul yow laay laaj ana alalam. déedéet Sonko du premier ministre. non yow yaa tudd dama ni caisse noire. président waaw waaw waaw defal naa rek <laughs> Ousmane am na caisse noire. waaw man weddi ma ko waaw yow yaa ne. Oh, oustaz oustaz yow yaa ne Ousmane Sonko na jël ci caisse noire bi mu campagne. <laughs> amul caisse noire. am na ko non am ko. ok mu ko non oui ma oustaz. moi je me limite à ce que tu as dit. waaw yow yaa ne ana caisse noire waaw kon bu amee caisse noire na ci jël mu campagne. waaw waaw xam nga caisse noire mooy lan. mooy lan mooy bu ñu la dénk. yow kon yow bu ñu la dénkee xaalisu daayira bi. waa ah, yow oustaz moom ngay dundee. waroo jàpp ni moom laay dundee yow. waaw non parce que loolu wax na ko def xaalis bi mu moom. waaw moomul caisse noire bi. moom de kan moomul caisse noire bi waaw kay sénégalais yi. waaw kay xam xam boo demee mm-hmm. laajte lan mooy utilité caisse noire. Mm-hmm. ñu expliqué lan mooy caisse noire. Mm-hmm. ay fonds la yu yu ko assemblée. di génneel. waaw di ko ko jox. waaye nekkul fonds yoo xam ne déglu rek. waaw da ciy def lu ko neex. waaw mais lii deful ci lu ko neex. waaw non mais écoutez campagne. campagne campagne uh-huh. waa partem la engagé mm-hmm. engagé wul Sénégal engagé wul xaalisu Sénégal engagé wul dara Sénégal mm-hmm. waa partem la engagé ñu génnee waa xaar rek voilà xaar rek xaar rek léegi yow da nga nekk ci jàkk man dama koy jël ceeb laa koy tënk ñu jàll yow da ngaa nekk ci jàkk waaw jàkk jàkk ji am kees yaa ngi dégg waaye heure bu ñu jullee juma di nga gis ñu yor mbuus naan ñu dem ci jàkk ji nit ñi xam nga forsuñ kenn mu joxe nit ñu war a joxe joxe kees boobu bu ñu ko jëlee yow oustaz bi bu ñu la ko joxee di ko dundee ndax da nga ne Sonko da dundee keesu euh, kees noir am léegi wax la réew du doxee noonu xaar ma ñëw xaar ma ñëw beneen bi mooy da ngaa bokk ci nit ñi nga xam ne dañoo gëm ne nguur récompense la man mi waaw yow c' est que yow yaa ngi personnalisé vraiment ne wu ma. mais ma jigéen ko d' accord naa la jox. waaw parce que man li mu li ma. non bi moom du ko nangu. Oustaz dafa ne Oustaz dafa ne. Ousmane Sonko waa réew mi wàccoon nañu ak moom. Mm-hmm. ndax biñ ko yéegalee ba jox ko gi. waaw waratoo leen laaj dara. ma ko Oustaz dafa jàpp ne Ousmane Sonko waa réew mi dañ ko war récompenser. loolu rek laa wax. waxu loolu kon nel waaw yow da nga jàpp da nga bokk ci ñi nga xam ne dañoo jàpp nit ki bu ñu ko falee dañ koy récompenser yow yaa andi ay say ci say wax laa nekk ba léegi de. waaw waaw nga andi Abdou Diouf. andi Abdoulaye Wade andi Macky Sall ne kenn musu cee laaj xaalis musuma koo dégg te dañ doon campagne waaw ban xaalis lañ doon campagne seeni caisse noire non non kon damay topp rek sa logique de de hmm. démonstration hmm. kon yow da ngaa bokk ci ñu gëm ne maanaam récompense la maanaam bu ñu fa àggalee rek yow am nga xaalis am nga lépp da nga war a ji def loo neex mm. man bokkuma ak yow avis ci côté boobu noonu mm-hmm. léegi man na ma ñëw ci wax ni ma gisee déclaration Ousmane Sonko mm. benn Ousmane Sonko xam nga maa ngi dégg nit ñi di wax sa naan noo ay moyens lay def pour justifier ak lu mu mën a doon def na lam daan def malgré yor na nguur mais def na la mu daan def ndax ñëpp xam nañ Pastef ne tout le temps bu événement jub see dañuy def collecte de fonds. gis nga élection yële passé ba législative yi bi ñu defee seen collecte ba àgg trois cent et quelques mille da nga di Antoine Diome def communiqué di commencé di andi ay problème ay voilà euh, mooy ministre Antoine Félix Diome ministre de l'intérieur kon ñoom lii seen manine la yàgg nañ ko def léegi nag Sénégal dafa toll ñu xool dañoo bëgg a baax wala dañoo bëgg a bon Amérique xam nga tollawul ak Sénégal Amérique bu bu bu bu démocrate yi waxee ne Kamala Harris mooy seen candidate dañuy cotiser. Mm-hmm. si amee dégg dañuy cotiser ñoo koy cotiser ñi am xaalis ak xam nga cotisation nag kenn moom. Mm-hmm. kenn moomu ko askan ku mën na nga def. ñëppay cotiser da ngay gis nañu opéra génne na joxe nañ nangam million de dollars ñëpp rappeurs yi célèbre ba ci américains yi gën a ndaw ku nekk jël la sa gafaga nga dem parce que loolu mooy politique. Mm-hmm. gis nga politique nekkul ne da ngay jiital nit ki mu àgg au rek yow ngay xaar nit ki di la jox te wax dëgg fa yàlla loolu la ñu doon gouverner li mu wax dëgg la Macky Sall ba Macky Sall ba fi mu toll nii xam nga opposition la nekk maa lay génneel ci yàlla ne bu génnewu xaalis joxe kenn du yëngatu parce que ñoom loolu la ñu xam ci politique ñoom loolu la ñu xam parti socialiste loolu la ñu xam waa PDS loolu la ñu xam moo tax ñoom parti yooyu ku ci yorul nguur rek dangay am problème mais tax kii di la dëgëral non non waaw non moom mën na dëgëral man xam man yow nekkuma ci ma wax bu ko neex mu dëgëral ko ba neex keneen compte noonu waa waa ñoom ñi nekkoon ci nguur moo ñoom ku ci nekkoon ci nguur ma jigéen da ngay am problème ndaxte fonds yi nga war a rouler en tant que parti opposant doo am les moyens parce que sa militant bi dañuy xaar lu jóge ci yow ñoo ci moom Sonko loolu la réussir Sonko a réussi à benn sénégalais bu bees sénégalais bu bees boo xam ne day def Euh, citoyenneté participative c'est-à-dire que Sénégal boo xam ne dafay participer ci développer réewam ndax lii nii nii c'est un projet projet bi ñoom ñoo ko porté jàpp nañ ne àgg nañu à mis chemin à mi-chemin euh, du projet des am na lu leen dese leen dese nan la ñuy def ba àgg ci ñoom ñoo koy seet bu nekkee dañoo cinq cent millions pour jënd carburant pour àggali ko kooku seen politique la. te woote bi mu woote ni daje nii xam nga Oustaz Assane dafa ne référendum la ndax nee na ku ci joxe rek. da koy voter waaye sa il faut mu xam ne am na ñoo xam ne duñ joxe te dinañ ko voter c'est-à-dire que euh, du nekk affaire parti la mais Ousmane Sonko sénégalais yi ni ñu mel ci moom loolu beneen affaire la loolu moom bu ñu ko doon jàngat fii nii beneen affaire la léegi nag li mu def li mu def nit ki boo koy toppandoo da nga koy toppandoo ci lu baax te pour man li muy def nii lu baax la xam nga lu baax la mooy la oustaz gis nga alal ji nit ñi moom riibaa la ci ñu koy lekk yow yow oustaz nga da ngay jàngale diine alal ju ñaar ñetti nit bokk. Ah. riba la ci ki koy jël ko lekk. Mm-hmm. waaye kon yow mm-hmm. waruloo wax. Mm-hmm. Bambe mun na ko ma comprendre ko Assane wax. ma ne xamul ba rek mu ma la tontoo nag ma daggalu ma loolu. waaw ah. en tant que Oustaz Souleymane Diaw. toogal wax. Ousmane Sonko na jël caisse noire. mais ma ñëw attention danga may déglu. Ba Assane xam nga ne. sama wax dafay leer te déggin la laaj dama ne ñoom xaalis bi ñu am. Assane wax ak foo ko mën a déparé. finition ba am solo. mais mais mais wax la ne kees même bu dee salaire la am. Assane na leer bu dee salaire la. waaw Sonko nag génnee salaire am mu jël gars yi génne salaire bi wax nag non moom loolu la wax. déedéet mu nekkee premier ministre rek ba léegi. salaire am àggu fi 100 millions non bu loolu bu loolu xar rek non c'est que Modou bu man dama cumulé dama cumulé dama cumulé xam ngeen ni ni mooy xoolal yéen li ngeen def ni mooy xeetu nax yi ngeen nax ni àggul cent millions loolu tax dama koy wax non non Modou xam nga ni oustaz nit ñi nit ñi oustaz nit ñi dañuy reproché werante bi ñuy werante waaw d'accord après da ngay noté loolu d'accord après bu su ma nee Ousmane Sonko salaire am àggul cent fi nekkee ba léegi. Mm. parce que salaire xam nañ nangam la. Mm. yow bu ñu nee ne Oustaz Souleymane Diaw Walfadjri cent mille la lay fay par mm. man xam naa ne boo fa defee six mois six cent mille la. Mm-hmm. dëgg ko non man bi dama jël. ndax premier ne sax état Sénégal da ko ko teggil am na ay naa ne agul cent millions. mais bi mu fi nekkee ba léegi dama ne estimé ma ne bu nekkee salaire am cent millions la. d'accord waaw mu génne ci li mu ci dundee ak waa këram. Mm. la ca des Ousmane ko bu ko campagne mm. ndax rek bëgg a jël assemblée damay naan moom ñii ñoo yem. Mm. xamul tax mu yem ak ñoom. kon moom day wut lu ko fi taj lu ko fi daaj. Ousmane Sonko dañ koo dénk li ñu ko dénk ñun ñëpp ñoo ko bokk. ñun ñooy am suñu yéene. ci suñu poos. ci suñu kàttan ci suñu wax ak ci suñu temps di ko ci accompagner. même mënu ñoo xëy ak moom primature. léegi ci loolu noonu ci loolu noonu. maanaam c'est projet. Mm-hmm. c'est projet. Moussa il faut nga dégg baax na c'est un projet projet boobu noonu moom bu fekkee ne daf koy revendiquer ne moo ci war a def lépp lépp lu mu war a def uh-huh. kon moom échoué na moom li mu def lii la war a def réew ay citoyen ñooy bokk di ko construire dafa yor un mouvement bu tudd benn parti politique hmm. parti politique boobu mu yore yóbbu eggale leen ci nguur bu taxee ne ñuy jël ci nguur di def di régler seeni problème c'est un problème léegi nag moom dafa woote foofu laay daanelee ma jigéen. waaw woote na bi mi ngi de. waaw que xam nga dem bi comprendre nga ko. d'accord voilà woote na ñu avancé si woote bi mu woote mooy. Mhm. ñëw leen ñu boole wuti ay député. pour lu ñu bëgg a def ci réew mi mhm. ñu def ko. Mhm. mu ne loolu pour ñu dem ci dañuy soxla lu ñu demee wax ak nit ñi lan la ñu ne carburant ak ay oto ñu ne nañu cotiser pour dem wuti ko. évidemment loolu mooy projet. léegi nag loolu noonu. muy waa Pastef man gis naa ñoo xam ne bokkuñu Pastef joxe nañu. Ah. parce que ñoo jàpp ne. maanaam développement participatif la léegi nag ni mu ko defee sas na nee na ñi nga xam ne ñooy ay xaritam xale yi la te ñëpp xam nañ ñu mel ne nee na satale ku nekk 1000 francs mm. ku mu neex nga joxe ku mu neex doo joxe neena ñi nga xam ne am nañu ndomba tànk di fayeeku weer bu dee dafa préciser sax mu ne waxuma leen ngeen jël xaalis mm-hmm. ca la ngeen di fayeeku ca mm-hmm. la ngeen di fayeeku comp leen ci ngeen cotiser mm-hmm. loolu mooy dëgg bu fekkee ne dañoo jàpp ne premier ministre président boo fi nekkee rek da nga war a jël ci xaalis bi ñu la dénk. Ah, pour di doxal say mbiru bopp. ah non ñiy wax loolu. waaw Modou waaw li ñu wax jaaduwul. te rawatina ci oustaz buy woote woo diine. xam nga dèjà li mooy personnalisé débat léegi a tontu si li ma la joxaatee peut-être nga. non man benn ah, mu déggee noonu la waxe man ni ma déggee noonu laa waxee. jeex na li leer ba leer mooy dama ni xaalis bi Sonko di laaj 1000 francs yi laa ni ànduma ci. waaw d'accord am na si droit da jël caisse noire bi. waaw am na si mais aussi. du tax ñu mais oustaz jeex na waaw d'accord. ñoom am na am na ñu fi laajoon ko fàtte mais pas man mi la fal lekk gu ñun ñu ngi am problème mu am problème mu ñu ngi nii am problème dund gaa ngi metti leeralaguñ ni ci lu leer. ñu ah waaw yéen tam nag. Moussa mën naa laaj benn laaj. Ah. mën naa laaj benn laaj waaw léegi d' accord. dimbali ma rek dimbali ma rek sama question question s'il vous plaît non jeexal na. waaw dafa am lenn sew sew sew sew dama ne Oustaz xam nga lu yàggul dara grande mosquée fii euh, euh, imam bi julli na ba pare laaj pour ñu cotiser ay 1000 francs 1000 francs léegi loolu ak lii nii daggan nañu. ak imaam yi demoon pale ne joomaay. waaw Macky Sall da leen doon jox xaalis chaque weer daga ma jig euh, kenn la dama bëgg comme dafa ñaaw lu lii dafa ñaaw lu bi def sax ab imaam bi jël si sa leeral li nga war a leeral lépp. temps bi jeex rek temps bi jeex dana ko leeral. dimension jëlal sa temps nga leeral ko ba mu ah. leer si ñun. dimension yi ah, nga laaj dimension yi bokkul. Ah, c'est diamétralement opposé ba pare dafa sensible. foofu noonu sensible na sensible goo xam ne loolu dinañ ko mës a indi de. Euh, lii nii ndax imam bi la grande mosquée. waaw d'accord ay war naa laaj wala war